li may jëkk a wax mooy yéen sëti maam Amary Ndaak yi duma leen wor duma leen wor mukk duma wor diine ji nee duma wor diine ji duma wor tariixa bi lu ma man ci defar ci defar ak rafetal danaa ca gar sama bakkan bu leen bàyyi xel. leen bàyyi xel. defe ni defe ngay teraangay diine ji teraangay dama koy dunde dama koy dunde ak sama njaboot. ak sama njaboot. bàyyi askan wi askan wi ak xeet wi. loolu du ma ko def mukk. jomb naa ko. ne jomb naa loolu. te war ngeen koo gis. war ngeen koo gis. ci sama doxin. ci saaw doxin. bi ma déparé ak léegi. bi ma déparé ak léegi. yéen askanu maam Amary Ndaag. nee du ma leen wor. du ma wor diine ji. du ma wor islam bi. waaye du ma wor tariixa bi. lii ma leen wax. suñ daagoo ba ci kanam. daa ngeen ci teg seen bët. am na loo xam ni. dama koo jomb. du ma ko def mukk ne jomb naa ko xalaas ne du ma ko def mukk man man saa borom daf maa dimbali laata may toog ci sees bi saa borom dafa doyal daa doyal saab xol saab xol damay gëstu araf damay gëstu araf ba saa borom yàlla fab aras. ba saa borom yàlla fab aras. teg ko ci sama loxo. teg ko ci sama loxo. dog boobu. dog boobu. billaahi. su ma ko liggéey ba mu àgg. su ma ko liggéeyee ba mu àgg. sama dépasse mat. sama dépasse mat. saam saq saam sax. du rës mukk. du jeex. kon war na maa gore. kon war na maa gore. ci wërsëgu Amary Ndaak. ci wërsëgu ma Amary Ndaak. lu ñu indi. lépp lu ñu indi. di ngeen teg seen bët. di ngeen teg seen bët. ma delloo ko ci góor ma delloo ko ci moom Amary Ndaak. incha kenn ku nekk kenn ku ne ci famille bi la la yàlla may nangul naa la ko la nga doon banaa ko ci say loxo lu ma yàlla jox ma bokk ak yéen du ngeen gis leneen mooy góor gu baax gi góor gu tedd góor gu yiw góor gu yiw saa baay sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg keroog bi ma toogee xilaafa ton ñeenti ton ci dund ci dund la ma njëkk a million teg ca ñeenti million ñeenti tonom yooyee ñeenti tonom fekk na dara nekku fekk na magasin bi dara nekku ci fii koor gi dikkee nee su koor gi dikkee sëñ Muntaxa yónnee suukar ak xaalis tabaski doonte menn xar doonte menn xar na yaar lay doon yu rëy mbakke mbakke bal la jërëjëf mbakke su ma amoon lopp jaajëf su ma amoon lopp jaajëf waaye dinaa ko ko jox njabootu boppam gi. njabootu boppam gi. indi nañ fa teraanga yu bari. andi nañ fa yu bari. ñu ne ko Abdoulaye Sylla. ñu ne Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla. fanweeri nag. fanweeri nag. moom la ma yónnee. moom la ma yónnee. ma jox ko ci loxo Ibrahima. ma teg ko ci loxo sëñ Ibrahima Seck. jël la ma soxla. jël la ma soxla. la ca des. la ca ma yónnee ko askan wi. soxna Aida Diallo. nee soxna Aida Diallo. indi fi teraanga yu bari. andi na fi teraanga yu bari. yu yaatu. yu yaatu. li ëpp ci gàmm gi. li ëpp ci gàmm gi. Cheikh sama euh, baay Muntaxa. sama baay Muntaxa. moo ko fi indi. moo ko fi indi. wala ak njabootam mbaa njabootam. seen cant. seen cant. seen ñaan. seen maa ngi koy yónnee sëñ Muntaxa. maa ngi koy yónnee sëñ Muntaxa. mu jébbalal ma leen ko. mu jébbalal ma leen ko. Mbàkke. ah Mbàkke sañ Galas. yàlla bu mu fi gaaw a jóg. yàlla bu mu gaaw a jóg. sant naa maa ngi sant ñëpp. maa ngi gërëm ñëpp yéen taalibe yi fi mag ñi jaaroon fi ñu ko tegoon àgg ngeen fa wàcce ngeen téere bi bu asamaan setee waa guddi gi yeewi naa ñëpp ndax gàmmu gi fii la yem wax leen amiin ñu ngi ñaan ka joodullahi daxartu fi kanamfillaahi wa tamassuki bi kitaabillahi wastajabtu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi dawaami mulkillahi bi baqaani laa ilaha illallah